na weer wi yëpp comme ni ko Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu waxe ne wa aamun thumma shahrun thumma yawmun ataa fihi lhuda qarnul quruni daanne wa mawliduhu bihi sharafun wa xiiru fa fi taadimi injaaxu sujuni nee na guddi gi nga xam ne ci la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa jamono nee na saraf la saraf nag mooy honneur tedd nga waaye xiir la te xiir mooy tànneef tànneef nag mooy bu ñii di jël përëm ñii di jël euh, weñ ñii di jël xànjar ñii di jël plaqué ñii di jël xaalis yow nga jël jamaa kooku mooy xiir kon nag fa fi taadimi in jaaxu sujudi amoon soxla doon wër fu ne mu tëw faju nee na jaare ko ci màggal guddi gëne àdduna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu sururun fii sururi wa aydun duna ayaadil uyuni nee na sururun bu njëkk bi day dellu ci at ma nee na at mi yëpp la ndax fan boo jël ci at yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi mas na ko dox ci kaw suuf sururun bu ñaareel bi day dellu ci weer wi ndax weer woo jël ci weer yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi am na ci jaloore sururun bu ñetteel bi nag day dellu ci bis bu tedd ba muy guddi gi nga xam ne ci la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa feeñe woon jamono waaye euh, li ñuy wax wàttul buyuuta min abwaabiha booy dugg néeg jaaral ci buntu ba waaye bul bët ndax bët nag a ah, nit mën na cee am lu ko naqadi li ñuy wax ne bukki bët bunt bant bënn bëtam ah waaw kay ko waxin la yàlla daf ne bu ngeen di dugg ci néeg daal te bëgg duggin wa jekk jaar leen ca bunt ba kon nag ñu ngi nuyu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo taaral jotaay bile di ay góor di ay jigéen euh, di ko doore ci al ustaad Cheikh Adama Ka euh, dinaa ñëwaat ci moom incha allah waaye di nuyu tamit suñu sang bu tedd bi Serigne Babacar Dia. wallaay ba waaw sëriñ Babacar Ba waaw xam naa dama bëgg di def jàkk ci li mu jàngale ndax dañuy wax ne jàng dangay sant ja boo santee ba mu sant dem waaw euh, tabaarakallaahu mel na ne discours am bi am na solo te ku dégg ni mu doon waxee rek dangay xam ne xam-xam dëgg-dëgg la doon waxee ndax xam-xam bi gën a sell ci xam-xam yi mooy xam-xam boo xam ne dafa ànd ak dalil mooy maanaam firnde mooy argument wax pour mu ñu euh, mun a am rigueur scientifique mu ñu nangu ko ci xam-xam faaw nag mu am li ñuy tuddee cëslaay te ay waxam dafa koo teg ci cëslaay te xam naa ne temps bi moo néew rek waaye lim yéene woon a génn ci xam-xam boo xoolee lim bind rek xam ne bahs ilmi la fari maanaam recherche scientifique bu riche riche la boo xam ne tabaarakallaahu dañuy béggee ak teewam di am fierté lool ci bokk ak moom jataay waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy tudd yàlla yàlla tagg leen ne wa zaakirina allaha kasiran wa zaakiraat te lam leen dig sax moo gën a neex tagg wata te mooy aadda allahu lahum magfiratan wa ajran azima ñuy tudd yàlla yàlla nee na lu ñu def rek ma dëgg ca tànk suñu président bi doon na wax ne am na yenn dossier yoo xam ne moo ci teg coñ maanaam ñoo xam ne def nañ njombe goo xam ne suñ leen ko toppee woon rek yoon dina leen inculpé yoon dina leen ne nu jàpp leen tëj leen ci kaso bi waaye moom nee na moo ci teg loxoom moo ci teg kuddam muy coñ waaye kon yéen tuddukatu yàlla yi li tax seen yëngu yi am sécurité mooy di nga gis koo xam ne dana def bàkkaar boo xam ne bu ko ca yàlla toppoon rek mu ñaaw mu fàttali ko jotaay yi nga xam ne moom la doon tuddee yàlla yàlla jéggal ko kooku la shakka fiihi ndaxte wa majtamaa qawmun fi baytin min buyutillahi yatluuna kitaaballahi wa yatadaarasuunahu fi ma baynahum illaa nazalat alayhim sakina wa gashiyatuhum rahma wa xafathum almalaika wa dakarahum allahu fi man indah yàlla subhanahu wa taala nee na ay jullit suñu dajee ci benn néeg ci néegu yàlla yi te defe naa néeg bii ñu jàkkaar lool néegu yàlla la la shakka fii ñu ne ko di def lan mu ne di jàng téere bi yàlla bii di alquran ak lan mu ne ak di ko jàngalante ñu ne ko luñ cey am mu ne yàlla subhanahu wa dina wàcce ci ñoom taw yërmande ñaareel bi mooy euh, yàlla lim leen di njëkk mooy mooy ak dal dal mooy jàmm dal mooy euh, sérénité nga am jàmm am dund teey ku ko bëgg rek dee ko jaare ci tudd yàlla kon yi tudd yàlla li ñu njëkk am mooy dal ñaareel bi mooy yàlla day wàcc ci ñoom yërmande te nag amu ci kenn du man du kaneen koo xam ne li nga jaamu yàlla mën na laa dugal aljanna nag nañ waxante dëgg rek yàlla moo ñuy mottileeg yërmandeem dong waaw yërmande nag marchandise buy jaay la te ku tudd marchandise tudd prix yàlla da koy jaay ne inna rahmatallahi qaribum min al muhsinin sama yërmande ñi mu gën a jege mooy ñiy góor góorlu kon da ngay góor góorlu am lu manqué yërmande yàlla ñëw mottali ko dabaatal ko ak wa rahmati wasiat kulla shay'in fa sa aktubuha lilladina yattaquun nee na sama yërmande yaatu na ba nga xam ne sañ naa ñëpp ma jëllale seeni mooy boole leen dugal aljan na yàlla neen sañ naa ko mën naa ko waaye duma ko defee noonu ñu ne ko noo koy def mu ne ko dama koy jaay yërmaane dama koy jaay ñu ne ko loo koy jaay mu ne maa ngi koy jaaye prix bi nga xam ne mooy taqwa muy ragal yàlla euh, cheikh bi lañuy waxoon ci jàkka ji loolu lañuy waxaat maa ngi wax benn wóllëre barki démbu boo xam ne yàlla boole woon nañu bi ñuy nekk tuut tànk mu amoon nag ñu cofeel boo xam ne buñ daan fo sax dañu daan defaral li ñuy tuddee ay cinéma campagne yu carton yooyu ñu ko daan foowe yàlla dogal nag ñuy jokkoo ci ak mbaax rek nag ak ragal yàlla ak mottalante ci diine waaye mu wax ma baat bu am solo boo xam ne moom laay waxaat dane ma man ak yow kenn matu ci seede moroom ji nit da ko jege jege goo xam ne doo mat ci moom seede ndax dañuy wax ne uude bi lu mu wax ci bay wu tawat wa rek ñu ne der baa tax kon moom loolu am suñ diggante ndax diggante bu yàgg te la ma waxoon sama kóllëre yële ca benn bind bu ma leen jagleel ma ne alaaqati maakum rabattuha biriba te diini xaaliqina wa nahji mawlaana muhammadin lam yazal fi lbarri majudihi lil xayri yurshiduna barran wa xannaana ma ne leen si suñu relation ak yéen du dog ñu ne lu tax du dog ma ne leen ndax ajuwul ci sama jëmm ajuwul ci seen jëmoo ñu laaj ma foo ko teg ma ne leen maa ngi ko yeewee ci buumu diine ji nga xam ne mooy diine islaam ak buumu sunna sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne bu dul woon xam bu woon ak moom sallallahu alayhi wa sallam xam yoonu njub moo ñu ko teg tal te baax na ci ñun baax goo xam ne moo gën ci ñun suñu bopp am na ci ñun yërmaande joo xam ne moom sallallahu alayhi wa moo gën a foor yërmaandey ndey nday ak baay kooku moom yàlla moo ko ko jagleel te garanti la ndax laqad jaakum rasulun min